noo ngi siyaar mbooleem jataay bi yépp képp ku fi nekk rek noo ngi ñaan ci darajey sëñ Touba yàlla yàlla guddal saw fan defal la wërsëg ak xéewal màggal gii nu jub muy bisub sëñ Touba bi yàlla nañ ko jekku ci ndigal ak njël kii nga xam ne moom la ñu jox muy tudd gan gii balaatu tudd daam kàddu nuy leeral ci moom rek muy nit la koo xam ne nitu alxuraan la nit la koo xam ne Serigne Touba rek moo ko ñor nit la koo xam te ne it mboolem lu baax ak ku wër lu baax ak ku bëgg lu baax boo ko seet see am ko kon Serigne Mbacke cër bii ñu la jox yelloo nga ko cër bii ñu la jox ci mbir

tuddee ba noppi waaw kon ki ci gàtt bi bisimilah. ki mbooloo mi borom rajo bi yokkal ma tuuti mbooloo mi damay faral di wax ni ku gàddaay sa baay ànd ak sa ndey fële sab aaw jële sab taaw dëkk ba ngay dem nga koy seen waaye doo egg barke nuyu na la waaye fayloo ko génn say bokk Jaxate nee xastee fi xew ak i fen buy mer di wax say ayib buy bég di wax loola saf te fekk na gëmu ko sëriñ Mbaye Jaxate nee buy bég naan la gën ñëpp yaa man ñëpp sëriñ Mbaye Jaxate nee na bu meree daal wax say ayib ba noppi tekki ni la gën nee na mënoo daw ba daw seenu mer baa nga daw ba def seen ngërëm defal la nga man la nga mënul nga bàyyi ko yow mbooloo mi Lamine Samba kan moo am doom Lirou Diane jàmbari Serigne Touba ak Seexa Fall Lat Suga bi Ngoone Dieng Fatim Penda Issa Dieng Damel Samba Lawbe Damel Samba Yaay Fall Cheikh Ibrahima Fall góor dëkk bàyyu lal la kooku mooy Ousseynou Ndiaye digganteem ak soxna Lamine Samba ku ma laaj ku doom ji Lamine ku ma laaj nu tudda doom ji ku ni buur gewal nu tudda doom ji dama ko waxaat yàlla nga am Seyduna Muhammad ki nu ko tudde mooy ki mujj ñëw ci ji mooy ki yóbbuwoon baayam Makka mooy ki yóbbuwoon ndeyam Makka mooy ki Cuculi, Elias Cuculi, Elias Cuculi, Elias Cuculi, Elias Cuculi, Elias Cuculi. Eh. baayam Basiir eh. Baara Baara may baayam sëñ Bambay baayam Seexul Xadiim borom huwa nabiyu wa rasuulu wal xaliil wal habiibu wal imaamu wa daliil balla nga doyloo mooy sëñ a dem na Mayumbe a na Lambaréné moom a Touba dem na Touba ca Ndar góor gi tawloo Moustapha tawloo Moustapha ay Serigne Saliou Mbacké borom jàpp ndal bala ngay dë yaa bokk ak liiru jaan mag ndaye ak bàyyi la la liiru waxan ñu ne yaay sama liiru confirmé na ko waaye loo xam liiru balla defu nga ko sa digganteeg liiru yéen a bokk لم يكن مثل المستوى محمدي سرا وجرا في البراء يا سمدي لم يبدو مثل المستوى محمدي سرا وجرا في البراء البراء يا سمدي هنرنا الإسلام والكفر ما di gaay pare ngeen ah mbokk yi ñu xam ngeen ñu ngi ci tudd liiru Diane li ci yéeme nag mooy ki nga xam ne mooy Balla Gaye 2 moom la liiru jaan def lu rëy tudde ko doom ji Balla ñu ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi nga nuyoo mbooloo. ba ñu dalu tuuti après ñu. bàyyi ñu bàyyi tuuti. la. jeex noonu. mooy ñëwal noonu ki nga xamante ni mooy liiru Diane moom Balla Gaye 2 macha allah tey tout blanc macha allah am na lu ma jot dégg sax léegi léegi am na écho yu ma jot bu fekkee loolu bu fekkee loolu dëgg la macha allah Lirou Diane na naar bi xoromam delloo na buum sam mbay mbay ba ca li li dàqal si àddina euh, trois la alliance Cokkoli la mi ngi noonu macha allah jël ko ne si kanam ñuy sol yére bi mi ngi noonu maas hey Mansour bala ngay dëwa ngi noonu liiru jaan a ngi noonu ndeysaan mais liiru jaan tey dafa war kontaan liiru liiru saraka ñëw na l'arrivée de Balla Gaye 2 moo tamit trois personnes Mansour dindi soog ci fil bi noonu hey le lion macha allah Balla Gaye daw ngi noonu Omar a ngi noonu tout la maye macha allah lii lu ne la la dëkk ñëwal lii kaay lii maa ñëwal lii si kanam ngi noonu Balla Gaye doo ngi noonu macha allah hey Umar Sakho ngoog mais li may dégg nii Mansour bu fekkee loolu dëgg bu fekkee loolu dëgg la jaan def na rafet lu may dégg ci suuf macha allah tey kontaan na li moo ko gënal loo gis ci àddina moom liiru mu xewle rakkam ñëw ànd ak moom ci bis bi muy noonu la Lion de Guédiawaye sunu jotaay bi yàlla bu mu doon sunu mujjante macha allah Balla Gaye dëgg noonu tout blanc la maye tey bu ko defee ñu déglu rek eh, incha allah ngeen dana ko ba noppi bu mën a am ndaanaan la champion la wax